bi mooy doon juróomeelu génn Bassirou Diomaye Faye di ko def gannaaw bi mu jëlee fonction ñaari fan ci weeru avril ba tey jilee gannaaw nag bi nga xamante ne demoon na ca république islamique bu Mauritanie dem ca Gambie ca Ghana naka noonu ca Côte d'Ivoire njiitu réew bu Sénégal bu yees bi di Bassirou Diomaye xeer Faye ñu ngi koy xarandi ca Guinée ñaari fan yi ajjuma ñaar fukki fan ak ñeent jàpp gaaw ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai bi ñu nekk Sénégal ak Guinée di ñaari réew yoo xamante ne boole bëri na lool ci taarix naka noonu tamit ci wàllu géographie boo ko xoolee sax nee nañu Sénégal ci boppam réew bi nga xamante ne moom moo fi gën a bëri ci ay étranger Guinée la ndax téeméer boo jël ci ñi nga xamante ne ay étranger lañu ñeent fukk ak juróom-ñaar yi ay guinéen lañu bu ñu sukkandikoo ci xibaar bi nga xamante ne ARSD moo génne woon ci atum 2013 teg ci tamit doomu réew Sénégal yi nga xamante ne ñu ngi foofee ca Guinée muy tamit ñaari réew yoo xamante ne li leen boole ci wàllum tradition boole leen ci wàllum caada naka noonu tamit ci ay làkk bëri lool maanaam kàllaama ci wàllu wàllum koom naka noonu tamit ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum artisanat mbay mi industrie ak lu jëm ci wàllum njàng bi maanaam weccoo xam-xam ci wàllum diplomatie tamit am nañ ci lu am solo loo xamante ne am nañu ko naam war nañ ko mën a yokk ndax loole moo waral kii di dumb Doumbouya teewe woon cérémonie d'investiture Bassirou Diomaye Diakhar fay kon tey ji moom Diomaye moo war a dem ca Conakry ñaar fukki fan ak ñeent jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai bi ñu nekk ngir waxtaan yoo xamante ne daa daañu gën a xool nan la ñuy yokkee waaye tamit gën a taxal diggante ñaari réew yi nga xamante ne lu bëri doole te tamit ñu war a mën a boole seen doole bu ko defee gën caa mën a gis seen bopp.